gis nañu dans quelles conditions la ko amul et même juge yi ñoo rendraat encore une autre liste beneen euh, beneen décision de rejet bu ñu defee recours ba pare ñu wax ne que effectivement que le fait que le président Ousmane Sonko amul quittance du fautam fautu administration bi la donc son dossier est complet les mêmes juges alors que ñoom waxoon nañ ne au début qu'ils avaient examiné le dossier au fond cest à dans le fond c'est-à-dire xooloon nañu dossier bi yëpp donc ñoom bu ñuy xool au début gisuñu loolu donc il fa il a fallu que ñu def recours ba pare boobu la ñu dem gis donc c'est c'est extrêmement grave en fait lu mel ni candidature élection présidentielle nga jël dossier candidat nga traité que de manière aussi légère ah, beneen aspect bi boo xoolee bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu en fait quand ils ont ils ont rejeté le dossier parce que le dossier n'est pas complet ñu ñëwaat ci beneen aspect ñu ne léegi que malgré que le dossier soit complet léegi le président Ousmane ko ba léegi mënul nekk candidat lu tax parce que ñoom jàpp nañ ne Ousmane Sonko dañu ko condamné te si condamnation boobu ñoom dañoo wax ne que Cour suprême moo leen transmettre dossier bi est-ce que vous avez compris donc lii day wane ne que ñun ñëpp lu ñu doon xalaat depuis toujours dëgg la boo xoolee man mii di wax ak yéen actuellement man j'ai un procès en diffamation depuis le mois de mars passé ba léegi mënuma am une seule décision même en première instance donc ñu accélérer un dossier en une année ñu jeexal ko ba pare par je ne sais pas hasard la wala conseil constitutionnel ñu dem la même personne ñu ne lii moo tax ñu valider te ñu ne conseil ñu ne cour suprême si boppam moo leen yónni dossier euh, euh, euh, dossier bi te da ngay xam ne décision boobu mais bu bu ñu waxee ne am na benn décision bu ko condamné génnee ko si si si si ko si article nee nañ article trente waa L di du code électoral lañ ko basé te boo xoolee article L trente bi L cent trente oui L cent trente non L trente L trente L trente L trente waxul ne il inéligible article L30 day wax ne que ne doit pas figurer sur les listes électives te boo figuré wul ci list bi loolu pour loolu procédure la laajte il faut mu am une procédure administrative boo xam ne dañu foo war a jaar ñu notifier ko bu buggee mu attaquer décision bi mais en l'espèce on ne lui permis parce que le délai était réduit ba pare conseil constitutionnel dafa dem ñoom ñuy autosaisir directement c'est-à-dire ñoom débat yi ñuy def ci télé yi mooy partisan Macky Sall yi lu ñuy wax ci télé yi ñoom en fait wax sa xalaat lañ def dans une décision du conseil constitutionnel te loolu c'est extrêmement grave xam nga genre décision yi pour euh, mag ñi amul problème parce que ñoom pare nañ man tout le temps damay wax sénégalais yi nañuy raisonner en termes d'avenir man bu am 30 ans aujourd'hui man dinaa dund ba peut-être que sama doom mu mës a nekk candidat aux élections présidentielles su boobaa mun nañu sukkandiku si lu mel nii ñu génnee ko si ay liste sénégalais wu wu noonu la war a xalaatee moo tax damay woo sénégalais yi ma ne leen eh, il faut vous préparer xam nga euh, man j'étais gendarme et je ne suis pas un fouteur de trouble mais gis nga am na fu mbir di toll il faut se préparer gis nga lii c'est un problème de génération c'est un problème d'avenir pour ñu régler ko il faut que ñu pare gis nga lu mu leen jaral ñu ko war a jaral moi je considère bu fekkee ñoom gagné nañu élection yi gagné nañu ko y' a pas de souci moi je suis démocrate mais il faut que les sénégalais se préparent à sécuriser leur sécurité c'est-à-dire que ñoom ñu taxaw bu leen jaralee dee ñu dee y' a bu ñu jaralee kaso ñu dem kaso dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko moom dëkk bi du pour benn nit. voilà ça je vous le dis te loolu eh, bu fekkee ne jaralul sénégalais xam nga yàlla nee na dëkk bu ne façon dirigeant bu mu mérité la koy jox bu fekkee ne ñun nangu nañu ne que nit ñi jaay ñu doole. Euh, teg ñu si coono injustice depuis des années ñu nangu ko y a mun nañ ko nangu man j'ai une capacité de résilience extraordinaire mais nag damay woo sénégalais yi wax leen ne il faut vous préparer il faut vous préparer je ne demande pas à ce que ñu confisquer élection yi wala ñu imposer leen suñu volonté mais il faut vous préparer si quelqu'un veut vous imposer une volonté vous devez vous préparer à protéger la justice et le droit parce que tey bu fekkee boo gisee ni man ak ni ma toll nii aw ma doole may dox ci mbedd bi kenn dóoruma c'est parce que y a un y a une loi y un règlement bu fekkee ni dem nañu ba loolu respecté wuñu ko amatul fii wax kii républicain la kii lii la mais on est obligé parce que lu ñu yoon may ak yàlla loolu la ñu doxee voilà moi je pense que c'est important que ma préciser loolu euh, maa ngi jégalu xaw naa gudd tuuti